salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi lu ma leen waxoon ñi rey Aziz Dabala dañu koo xam ay xaritam lan jàpp nañ ki rey Aziz Dabala jàpp nañu ki rey Aziz Dabala mi ngi wuyoo ci turu Mamadou Lamine Diawo di Modou dëkk gannaaw raay maçon la dafa dem ci Aziz Dabala ba mu demee ci Aziz Dabala doon ko ñaan xaalis waxoon naa leen ab chaque chaque année mooy dajale paasu màggal yi xaalis bi day bari mu koy yóbbu Touba benn waay bu nekk Amérique mu ko yónnee waxoon naa ko foofu ba mu ko ñaanee xaalis mu bañ ci la génnee paaka di ko menacer ba mu yàgg mu daal di koy jam mu daal di dee ba mu ko reyee ba pare dafa bañ a bàyyi trace yaa ngi digg dëpp dëppal defar visiter chambre yeeg yëpp ba mu visiter benn chambre bi nag fekk fa waali ah mu xam ne bu rëyul waali te waali gisoon na ko. day bàyyi trace te dañu koy jàpp mu rayaale waali ba mu ko rayee ba pare ñu yóbbu ñoom ñaar seen ñaari téléphone yépp mu jël téléphone waali yóbbu téléphone euh, euh, Aziz Dabala yóbbu waaye nag compte Wave yi vidéo ci dara compte Wave yi moom nee na vidéo ci dara mais ba mu leen rayee ba pare dem na ci benn xaritam ci benn xaritam dem na fa wax ko ne ko rey naa leen rey naa ñaari nit ñi rey naa leen ñoom ñaar ñoo ànd dem Touba xarit bi mu ko wax ak moom ñoo ànd dem Touba nan jàppale xarit ba beneen bi ci tegu mooy lan laa leen waxoon Aziz da koo xam Aziz ko ubbil mu dugg naayis jaarul fenn waxoon naa leen ay xaritam ñoo ko rey waxoon naa leen ay xaritam ñu xam ñoom ñoo ko rey li ma leen waxoon dara du ko dindi léegi nag xam nga lan moo des meurtre bi kañ la dimanche na wala samedi jouru màggal lanu jàpp Mamadou Lamine Diawo di wuyoo ci Modou Lo dëkk gannaaw raay juru màggal lan ko jàpp ñi ngi ko jàppee ci polisu jannatu maxwaa ñoom ñoo ko jàpp ba tey nii mi ngi polisu Touba di xaar transfert pour dem Dakar mi ngi Touba ñu bàyyi ci niwi di màggal lan ko jàpp léegi nag jour bi moo de jour bi mu ko rey samedi la wala dimanche ak xarit bi mu ko wax yëgal ko ne ko Aziz Dabala ak Waly rey naa leen ñoom ñaar ñu ànd séddoo seen xaalis dem Touba xarit boobu na wax kan la wasalaam maa ngi ñëwaat.